الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا برسلت يا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمس الكرام في تجوار سنية سليمان في دولة دين وقمة كريم عنوان المولي المنهج الصحيح للشباب المسلم في العقيدة والدعوة تملك في أيضا اليوم لدينا إن شاء الله سنبقى أستاذ مركبة حفظه الله تعالى ورعاه nekk sàkk ko xam-xam ni nga ko xamee jàngee ci réew mi yàlla subhanahu wa taala war dëggal ko dem jàngi ci réew ñëwaat ba tey di bay ci li nga xamante ne moom mooy daaw di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla fay ko yàlla jàppale ko wala dooleel ko xam-xamam te sàmmal ko tomb bi mu nar a waxtaan ak ñoom fàttali secteur ñoom moo di daahiratul xulubi wal tashaddud wal unf lada shababi athar asbab wasailu ilaaj ak ëppal ak taral teenal ci wàllu diine ni ko commencé seetlu ci ndaw ñi lan moo ko waral yan mbir la ko sabab yan mbir moo koy faj lan moo ko waral yan mbir ñoo ko sabab lan moo koy faj su ngeen seetloo di ñu yëg ni ak lëkkaloo bu jege mu ngi ci waxtaan bii ñuy waaj a am ak bi nga xamante ne moom moo romb léegi muy ahamu sifaat alfawaid wa raddu ala eh, ahami subhaatihi kon duñu def lu eh, ne suñu bopp bi fa leen fadal suura eh, wa jazakum allahu xayran jazakum allahu xayran wa baraka fikum ahsan allah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 muy ay détails yu xam-xam détails yu formation yoo xam ne xëy na ci ay fan lañ koy def dajale ci ay ndaw pour gën leen tàggat ak sensibiliser leen ci yenn sujet yoo xam ne sensible la surtout ci fan yi ñuy dund nga xam ne fitna dafa tasaaroo bu baax baax ci àdduna bi te léeg-léeg lecture biñ ciy am surtout buñ nekkee ci benn âge lecture lay doon boo xam ne du jub trop ndax dafay tegu tuuti ci ay sentiment lu tegu trop ci yenn expérience ak ay base yoo xam ne ñu xóot la loolu mun na jur léeg-léeg yenn taxawaay yoo xamante ne du nekk lu gën taxawaay yooyu buñ ko seetaanee mun na dem ba di yàq lu bare bare bare loolu moom di ci wax fuñ toll war nañ ko di def non seulement di former ak di yar moo xam mag ñi ak ndaw ñi yëpp mais di def léeg-léeg genre jotaay yu mel nii pour sensibiliser xëy na ñi ko teewee lu baax la naam ñu ñëw teewee jotaay yi fekke ko fekke waxtaan yi mais même ñi ko teeweewul après ñu jéem a fexe ba waxtaan yi ci doon def ñu def ko ci ay fichier moo xam audio la wala vidéo ñu tasaare ko ba ñu bari mën cee jëriñu kon lu am am solo la lu ñu rafetlu la tamit di ñaanal yàlla subhanahu wa taala ñu ko taxawee yàlla fay leen yiw te barkeel ko tam Euh, Cheikh Mouhamed euh, jazakallahu xayran yal na ko yàlla fay jiw daf doon bëgg a def benn introduction pour ne dafay xëy na xamle ci waxtaan ma ne ko jarul nekk di dugg ci ay détails ndax moom xëy na xam na ma tuuti ay mbokk lañ ci diine yàlla boole ñu ci xam-xam yi di jàppalante kon loolu rek daw bu fekkee ñoom taxawee nañ liggéey mel nii ñu suñu waru gar la bu ñu ci woowee la ñu ci sant ñu ñëw taxawee te duñ ci séntu lenn lu dul rek seen i ñaan ndax loolu suñu cër la ndax liggéey bi ñoo ko bokk kon yàlla yàlla dëgëral yàlla na yàlla barke comme nu mu ko waxee sujet bi ñu proposé woon mooy zahiratul ghuluwi wa tashadudi wal unfi lada shabab al muslim muy loolu nga xam ne dafay feeñ léeg-léeg ci ndaw ñi muy ak taral akub diisal akub ëppal loolu nag buñ ko ko wax buñ seetloo sujet bi dañ gis ne ay baat yu bëri lañ ci jëfandikoo muy alxulu wa tashaddud wa unf lan mooy sabab yi lan moo koy causé ci ñoom lan mooy tax loolu di am ak tamit lan la loolu di jeexital ci ñoom ak ci l'islam d'une manière générale ak ku ko bëgg saafara faj ko ci yan yoon nga war a jaar ak yan moyen nga war a jëfandikoo ba saafara loolu muy kon benn constat bu nit ki di njëkk a def ci benn fee bu am xool ne lii am na bu lii amee mu ne lan moo tax mu am ñaareel bi tamit mooy ak amam lan lay def lan mooy conséquence amam ñetteel bi mooy am naka lañ mën a def ba li jot a am ñu jële ko fi li amagul ñu fexe ba am li amagul ñu fexe ba am loolu kon muy jàngat boo xamante ni bu xaw a xóot la xëy na du ma wax ne mën naa ko matal ci jataay bi ñu def nii waaye dinañ ci dimbali ko yàlla subhanahu wa taala suñu kéem tolluwaay kàttan euh, liñ ci teewlu ñu ñu ñu ñu baaxante ko ñu fàttalante ko li ci njëkk mooy alxuluwu wal unf wa tashaddud baat yooyu nga xam ne jëfandikoo nañ ko ci thème bi booba bu ngeen ko seetloo ay baat la yoo xam ne ci li muy dellu ñoom ñett ñëpp mooy weesu fuñ la yemloo mooy mu jaawasatul xadd weesu fuñ la yamloo ci diine ndax ci lislaam comme ni ko cheikh lislaam rahimahullah waxee al xulu buñ ko waxee rek mooy mu jaawasatul xaddi fi xamdi shey aw zammihi mooy weesu fañ la yemloo ci mbir ni nga koy gërëmee ni nga koy bëggee wala ni nga koy xafee ak ni koy bañee mooy mbir mi nga ëppal gërëm ko ëppal ci tagg ko weesale ko fi nga xam ne fa la waroon yem ci mbaaxam naam lu baax la lu baax mi ngi ci mais fi nga ko war a yamale si sa jugement da nga koo dépassé wala muy contraire bi ci mbir moo xam ne mbir bu bon la nga war ci am position boo xam ne dafay tegu ci jugement bi nga ciy am mais jugement bi da nga ciy koo jox lu weesu li nga xam ne moom la yelloo mooy li nga wax ne aw garni yi naka loolu al unf mooy dëddu rek bu ñu waxee al unf li maana shidda moo tax tashaddud bi ñoo dafay delluwaat tamit ba léegi ci al unf rek al unf aw al anf wala al inf donte ab damma moo gën a nekk la sax al unf bu ñu ko waxee itam ba léegi mooy ak taral li yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon Aïcha radiallahu anha ne ko inna allaha rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ti ci Abdullahi ci xadis Abdullahi ibn Mughaffal bu dee ci xadis Aïcha daf ko waxoon ne ko alayka birrifqi aw alayki bi rifqi wa iyaaki wa al unfi wal faxsh mooy ci xadis bi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalaam danaan toog yahud yi romb ko di ko wax assalaamu alayki assalaamu wal mawt di ko ñaanal dee mel na ku koy nuyu fekk ne dañ koy ñaanal mu leen loolu ko alaykum wa alaykum ak yéen itam Aïcha radiallahu anha bi mu déggee li yahud yi di wax yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa mer mu tontu leen ne wassaamu aleykum wal laanatu wal gadab daal di ci teg ay baat yoo xamante ni diis la kon yamul ci delloo leen li ñu wax mais daf leen tontu xas leen xasu wéetu li nga xam ne moom lañ ko wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko yow Aïcha yàlla day ku oyofal ay mbiram la te itam bëgg na ci nit mu nekk nit ku oyofal ci ay mbiram la kon na nga taxoo ak di oyofal tey bañ di ëppal ak di def loo xam ne luy ñaaw lay doon moo tax mu ne ko wa iyaaki wal unfi wal fahish bu dee ci xadis Abdullah bin Mugaffal daf ne inna allaha rafiqun yuhibu rifq wa yuxfi ala rifq ma la yuxfi ala al unf wa ma la yuxfi ala siwaahu yàlla subhanahu wa taala dafay oyofal ci ay mbiram bëgg ci mit jikko boobu moom borom bi subhanahu wa taala te loolu dina ca fay loo xam ne du ko fay ci nit ki nga xam ne dafay taral kon al unf al unf ba léegi ci maana shidda lay dellu ak diisal ak ak ci la on boobu di dellu mooy bi ñu def li ñu jëfandikoo ci thème bi ci euh, sujet bi tashaddud tamit ci loolu lay dellu tashaddada fi l-amr ida baalaga fihi wa nit ki bu ñu waxee ne dafa tashaddud ci mbir mooy daf caa weesu fañ ko yemloo woon daf koo diisal weesale ko fañ ko yemloo woon léegi leneen li ci amaat mooy. gis ne li nga xamante ne bi mooy diisal ci diine bu ñu ko waxee kon mooy weesu fi nga xam ne fi lañ dayeen loo woon weesu ko pas bañ fa àgg bu fekkee bañ fa àgg la loolu gàttañ lu la mais mooy nga dépassé ko ndax lenn ci borom xam yi jiitu woon salafu salih ku mel ne abdullah yi Shikhir doon la wax ne mu eh, Muqarrib ibn Abdillah Shikhir Muqarrib daf daan wax naan alxasanatu bayna sayyi'atayn alxasanatu bayna sayyi'atayn doon la wax ne jëf bu baax mi ngi ci diggante ñaari jëf yu bon jëf bu baax mi ngi ci diggante ñaari jëf yu bon loolu lu tekki mooy ne jëf bu benn équilibre la benn milieu la boo xam ne ñaari jëf yu bon ñoo ko seq loolu daf lay tekki li yàlla wax ne wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fatafarraqa bikum an sabilihi yoonu yàlla bu jub bi mi ngi nii na ngeen ko te bañ a topp yeneen yoon yi nga xam ne ñoo ko seq ndax loolu yonent bi alayhi salatu wasalam daf ko misaal ni ñu ko bi mu waxee ne yonente bi alayhi salatu wasalaam benn bis dafa rëdd benn rëdd bu gudd rëdd ci ndey jooram ay rëdd yu ndaw rëdd ci càmmoñam ay rëdd yu ndaw kon loolu li muy tekki mooy njub mi ngi ci digg bi sànkute mi ngi ci côté yi mu ngi ci afraat bi moo tax Ibn Qayyim bi wax ne li nga xamante ne bi mooy siraatullah bi dafa nekk jub dafa nekk wasatun bayna tarafayni dafa nekk benn njub benn équilibre boo xamante ne bi ñaari mbir ñoo ko ñaari mbir yooyu ko seq benn bi mooy imma xulu ëppal beneen bi mooy yéesal moo tax lenn a ak salaf doon ne ma amara allahu bi amrin illa wa li cheytaani fihi nazrataani imma nazratun ila xulu aw nazratun ila jabha wala yubaali bi ayihima basar cheytaane saa bu yàlla diglee mbir am na ci ñaari taxawaay benn taxawaay bi mooy pousse nit ñi pour ñu dépasser fi leen yàlla yemloo woon mooy ëppal bi wala xëcc leen pour ñu bañ a àgg fi leen yàlla sant muy kon gàttañ la ak ëppal ëppal bi mooy weesu mbir nga weesale ko fi nga ko waroon yamale loolu ci lañuy waxtaan ci wax jataay bi loolu nag sujet boobu dañ koo lëkkale ak ak shabab muy ñoo xam ne dañoo nekk ci benn étape ci seen dund étape boobu mooy étape bu jeune di ndaw ñu koy tuddee marxalatu shabab nga xam ne tuddee marxalatu numu étape yi nit ki di jaar ci croissance am étape yu bëri la am na ci benn étape boo xamante ne bu sensible la boo xam ne dafa ànd ak énergie bu bëri te manqué néew expérience expérience bi dafay néew ñor bi dafay néew mais tàngoor bi daf fiy nekk énergie bi daf nekk loolu moo tax nit ki bu nekkee ci boobu pour mu am équilibre ci ay mbiram dafay jafe mooy pour mu yamale ay mbiram fi mu war a yem dafay jafe kon ñooñu lëkkali leen ak sujet wu dépassé fi nga war a yem loolu munasib la lu lu jaabu la muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci diggante boo ko jëlee ci ñaar ki at ba 40 ans ba ñeent fukki at muy 20 ans ba 40 ans ndax boo jógee ci sënnul mura muraaxaqa bi nga xam ne mooy jógee ci 12 ans wala 13 ans ba 19 ans da ngay daal di di à partir de 20 ans ci sënnul shabab nekk ndaw ñi nga xamante ni ñu de jeune boo toppee loolu ba 40 ans foofu la nit di commencé di am ak ñor. xatta ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana qala rabbi awzi'ni nit ki bu demee ba am 40 ans ci lay àggee ci mat ci maturité ci dundam moo tax yàlla ci at boobu ci âge boobu lay faral di yabal ay yonentam muy bu ñu demee ba am 40 ans ndax ci la ñuy ñor ci la ñuy am ay acquis yoo xam ni expérience boo xam ci dund moo leen demee ñu am genn dal gi ak genn ñor gi pour mën di analyser mbir yi di ko teg ci loo xam ne lu lu dal la. laata loolu nag lu ci ëpp kër kër gi moo ëpp settantal bi ak xalaat bi kër kër gi ñu ko moo koy ëpp ndax yaram bi xadar bi muy àndal xel mi du toll foofu kon waxtaan ak ñi nekk ci étape boobu ci sujet yu mel noonu gis naa ne du am am solo ndax te ñu lu ci mën a am ëllëg ñoom ñooy avenir li nga xam ne moom lañuy dund mooy suñu diine yi ndax ndaw ñi ñoom ñooy doon ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey mbiri ci ñoom lay mujj kon préparé leen ci yooyu ba du leen yàqal njub bi nga xam ne ñu ngi koy ut lu ama am solo la li tax mu gën a amaat solo mooy jamono ji gis nga fa nekk jamono ji doy waar yoo xam ni dafa am ñu bëgg a ci àdduna bi benn système boo xam ni système de gouvernance mondiale boo xam ne obstacle bi gën a rëy bi gàllankoor seen projet boobu mooy l'islam mu bokk ci ci stratégie yi nga xam ne élaboré nañ ko pour néewal doole islam mooy di provoqué jullit ñi provoqué jullit ñi surtout ndaw ñi di leen provoqué pour merloo leen pour insister leen ñu def ay erreurs erreurs yooyu bu ko defee moom la ñu exploité waat pour gën a néewal doole jullit ñi rey yi ñuy rey jullit ñi ci àdduna bi rey suñuy ndaw bu fekkee raw rey nañ leen mën naa wax ne wàññi nañ bu baax a baax suñu doole gis nga Firawna bi mu bëggee wàññi doole banu Israël seen góor la doon rey di bàyyi seen i jigéen kon bu ñu bàyyee ndaw ñi ñuy def yoo xam ne dafay tax noon bi di teg ci ñoom loxo pour di leen mën di faagaagal loolu dafay néewal doole l'islam kon war nañ leen jéem a fexe aar leen protéger leen ci provocation yooyu ñu leen di provoqué ba ñu bañ a topp seen sentiment di tax ñu def loo xam ne erreur lay doon erreur yoo xam ne bu ñu ko defee dafay répercuté waat ci kaw xeetu l'islam yëpp te loolu tey mën nga ci joxe exemple lu dul jeex ci bërëb yu bëri tey ci àdduna bi ci ay mbir yoo xam ne mi ngi fay xew jeunes yi di fa dem di ko sóobu ci ay mbir yoo xam ne ñoom seen bopp étudier wuñ ko jàngat ko ba xam ko xamin bu leer mais la leen ci yóbbu sax doo ko xam li tax ñu war a gën a mën a waxaat ak ndaw ñi ci sujet bu mel nii mooy la plupart ndaw bu nekkee ci âge bu ñuy wax ak ndaw dafay bëgg di toppandoo bu gisee kenn def dara loo xam ne naw na ko ci fan na ko ci rek li ci bëgg li ci ëpp facilement dafay bëgg a jël tànk yoon na ko mbir mi neex rek mu gis ko nit di ko def loolu yëngal ko am lu mu fu àgg ci moom dafay bëgg moom tamit loolu koo ko def moo xam njàmbaar dañ koy tuddee wala lu ñu koy tuddee mu jéem jël tànk yooyu moo tax ñi bëgg di détourner suñu jeunesse bi ci suñu société moderne yi nga xam ne am nañ ko léegi la plupart détourné bi ñuy détourné ndaw ñi dañ koy def ci ay exemple yu ñu leen di tegal ci pour ñu roy ko pour buñ ko royee rek mel ni ñu bëgg ndaw ñi mel ko moo tax chaque fois dañuy def lu ñu mën pour di ut ay cobaye ay ñoo xamante ni ñoom la ñuy jàpp ci seen i fiir ba pare utiliser leen pour mën a détruire yàq ndaw ñi mooy ñu tuddee ay star mooy li ñuy tuddee ci wàllu seen seen i wax ñuy tuddee people ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk ci wàllu show ak business bi nga xamante ne bi show la nii ci kaw mais business moom moo nekk ci suuf ñu koy tuddee show bii ñooñu ñu ñu ci bari ñu ci nekk alal ji ñu leen di jox dañ leen ko jox pour naxee ko ndaw ñi pour wan leen ne yéen itam bu ngeen defee effort ba góorgóorlu mel na diw da ngeen di riche di ngeen am alal mooy ci footballeur yi wala boog nga ne ci sportif yi ci ñi nga xam ne ay woykat lañ wala ñi nga xam dañuy jouer nekk ay acteur di jouer cinéma et film dañ ciy jël ñenn bàyyi leen ñu jàll ñu jox leen alal yu bari defal leen ay faveur yu bëri di leen wane ci média yi ndaw ñi di leen gis di leen naw di yaakaar ni ñi ay repère lañ ay mel ay ay royuwaay la ñoo xam dañ leen war a roy kon ndaw ci âge bi dafay bëgg di roy te xew-xew yu bëri na léegi pour nga canaliser jeunes yi ci seen wàllu information ba li nga bëgg ñu xam ko rek loolu la ñuy xam loolu mënatul nekk ndax léegi info internet mi jeunes yi dañuy dem ci internet bi di xool ay vidéo di diir ay euh, forum di dugg ci yoo xamante ne mënuloo ko contrôler li nga mën mooy leen orienter di leen sensibiliser xamal leen li ngeen di gis ak li ngeen di dégg lépp waroo leen koo jël war ngeen ko analyser war ngeen ko teg war ngeen jaar fii war ngeen def yi loolu rek nga ci mën mais sinon mënuloo leen a contrôler ba li nga bëgg ñu xam ko wala li nga bëgg ñu informer woo ko rek noonu la ñuy informer kon loolu dina gën a feddaliwaat tamit waxtaan ci genre sujet bu mel nii ak ay jeunes ak ay ndaw pour sensibiliser leen ci bàyyi loo leen xel ci yenn pièges yi nga xamante ne ñu ngi ci lu bari ci li ñuy jànkoonte mu bu ñu waxee loolu wax information rek da ngay gis tamit foyer foyer de tension yi nga xam ne tey ñu ngi ci àdduna bi muy fitna yi ñuy dégg tey fu bëri ci ay dëkk jullit mu nekk lu ci bëri ay tooñ tooñ moo ko lal yoo xam ne léeg-léeg ndaw li moom bu ko gisee rek dafay am benn yëg bu muy am mooy war a fayu ak war a défendre suñu bopp lan moo tax ñuy seetaan ñu ñuy def lii léegi boo ko defee day daal di bëgg a trouver boppam ay solution léeg-léeg solution yooyu ay solution yu radical lay doon wax moo ko yóbbu ci ëppal bi ñuy wax nii loolu tamit baax na bu ko defee ay mag yoo xam ne ñoo ko ëpp expérience ëpp ko xam-xam ñu dalal ko xamal ko ne ko naam solution mënul ñàkk waaye dafa am ci yoon yoo xamante ni moom la ñu war a jaarale loolu doo xam ne mooy nag ëppal boobu ni xulu boobu ak taral gi nga xam ne moom lañ wax ci sujet bi ay melokaan la yoo xam ni yu ñu ŋàññ ci lislaam la nekkul lu baax lu bon la nekkul lu baax ci lislaam ndax dafa safaanoo ak njub ndax jub ci siraatul mustaqim nit ki bu ko defee xulu du nekk ci moom mooy ëppal bu nekk ci moom ndax nit ki bu fekkee dafa tegu ci siraatul mustaqim mooy dafa tegu ci l'équilibre ak le juste milieu muy tegu ci digg bi bañ a dépassé wala nga bañ a gàttal loolu bu ko nit ki defee ci li ñuy wax ne li istiqaama mu jug na kon istiqaama bu ko nit ki bëggee warul melawoo melokaan xuluw moo tax yàlla subhanahu li mu waxoon yonent def ne kon fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatxaw na nga jub comme ni la ko yàlla sante yow ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow nekk ci diine ji di jàppalante ak yow fexe leen ngeen jub comme di leen ko seen borom sante ngeen jàppalante ci loolu te bañ a ëppal wala tattaxaw tuxuyaan li ñu tekki mooy mujaawalatul xad bu leen ëppal mooy kon bu leen dépassé fi leen yàlla yemloo ci mbir yëpp kon istiqaama muy njub mënta ànd ak xulu mënta ànd ak shidda moo tax yàlla melaloon xeetu lislaam al wasatiya wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnas yàlla melaloon xeetu lislaam ak diggi doomu te boo jàngatee lislaam par rapport ak yeneen diine yi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko ci nit ñu jiitu woon xeetu lislaam ñu dugal ci seen i loxo ak seen bëgg-bëgg ba yàq diine yooyu di nga gis ne am na ëppal ak gàttañ bu nekk ci ñoom bu waral seenu réer bu waral seenu sànkute particularité wu l'islam moo ñëw nekk ci digg moo tax day wax ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin foofu da tasnif nit ñi muy dañ leen di def ay kuréel def leen ay catégorie li nga bëgg ñàlla boole la ci ñoom mooy ñu jox njub ñu nekk ci équilibre bi nekk ci milieu bi ñu am na ñaari groupe yu leen tëx mooy ñi nga xamante ni meru yàlla mi ngi ci ñoom ak ñi nga xam ne dañoo sànq ñi meru yàlla nekk ci ñoom melokaan bi ko gën a waral ci ñoom mooy xam bañ a jëfe kon ak gàttañ lu la ñi nga xamante ni dañoo sànq melokaan bi ko gën a waral ci ñoom mooy ñàkk a xam bëgg bëgg a loolu waral ci ñoom ñu dépassé fi ñu leen doon yemloo kon ñi gàttañ lu nañ ñi ëppal nañ l'islam ñëw nekk ci digg bi nekk benn équilibre boo xam ne moom ngay ñaan yàlla ci sa julli yàlla teg la ci yàlla saxal la ci mooy kon ihdina siratal mustaqim kon bu fekkee l'islam noonu la ko yàlla wàccee noonu la mel boo ci nekkee bëgg ci dund nekk ci njub da ngay moytandiku xulu da ngay moytandiku di ëppal dangay ngay moytandiku di jéggi dayoo ci say position ak ci say xalaatin ak ci mu bokkat ci loolu ba léegi tamit ne borom bi subhanahu wa taala bi mu sante yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko na woote ci diine ji daf ne ko na nga ci woote ak sagesse ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëmale ci sa yoonu borom nga teg ko ci xikma muy ak xereñ xikma lu muy tekki mooy wadu kulli shay'in fi mahallihi mooy fi'lu ma yanbaghi ala al wajhi alladhi yanbaghi comme ni ko Ibn Qayyim tekkee mooy mbir mu nekk nga teg ko ci place am mbir doo ko dépassé fi mu war a yem doo ko yéesalal fu war a yem da nga koy teg ci fi war a nekk kon xikma soree na ak xulu xikma soree ak shidda xikma mooy lu nekk nga teg ko ci place am loolu ci la yonent bi alayhi salatu wasalam tegoon taxawoon taxawaloon daawaam kon boo nee wooteem boobu moom ngay wuyu wooteem boobu moom ngay topp ba di ko ci wootele war nga fexe ba melokaanu xikma nekk ci yow te xikma bu nekkee ci yow da lay tere nga ànd ak ëppal da lay tere nga ànd ak jégg dayoo mu bokkaat ci tamit ba léegi yonente bi alayhi salatu wasalaam naka jekk danaan tere saxaaba yi wala képp ku mës a wuy si wooteen rek daf lay tere ak ëppal ci sa mbir war ci mbiru diine yaa ayuha nnaas wal xulu fa innama halaka man kaana qablakum bil xulu yéen nit ñi mooy tundiku leen di ëppal ci ndax ñi nga xam ne ñoo leen jiitu day li leen alakoon ci seen mbiru diine mooy di ëppal li leen alakoon mooy di ëppal mu ne kon nit ñi dee leen di mooy di ëppal ci seen mbiru te loolu mi ngi ko gën a wax ci keroog bi muy aji yónni Abdullah ibn Abbas ne na ko faral ay xeer xeer yi nga xam ne moom lay sànnee jamra Abdullah ibn Abbas ci déggam diine ndax yonente bi alayhi salatu wasalam moo ko ñaanaloon ne allahuma faqihu fi din wa allamahu tawil yàlla mayoon Abdullah ibn Abbas dégg diine mu dem faral ko ay xeer yu yam yu yam yu digg doomu bi mu indee xeer yi mu xool ko daf ne xeer yu mel nii lañu war a sànni daal di ne yéen nit ñi mooy tundiku leen di ëppal ci diine ndax ñi leen jiitu woon li leen alak mooy def ci seen diine mooy kon bu ñu la wax ne la sànni la ay xeer yu ndaw nga ni comme la ñuy sànni naa dem jël ay briques naa jël ay mool ngir gën koo mën a métital loolu xulwu la leen njël ndax loolu ngay lëkkale demeewul noonu li nga def nii lu say maana wi dafa am lu muy jëmmal rek la nekk ci ginnaaw yàlla moom moo ko xam kon xulu boobu nekkul loo xamante ni melokaan bu ñu gërëm na ci lislaam léeg-léeg na seytaan day fekk ki koy def mu xamal ko ne ko ni ngay def nii nii la ndax yow jàmbaar ndax lii li muy wane mooy da ngaa bëgg lu baax da ngaa sawar ci mais li nit di war a xam mooy ne xulu ëppal boobu bu ko ñu ci defee ci tànkute la nekk nekkul ci njub mu nekk nag ne xulu boobu muy ëppal boobu dafay nekk ci ay mbir yu bari ndax xulu dina nekk ci dégg gi nit di dégg wala boog ni muy déggee texte alquran ak sunna muy texte yi nga xam ne yàlla wàcce na ko ci yonentam bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne ci la ñu sukkandiku pour mën a xam suñu diine pour mën a jëfe suñu diine interprétation bi ko nit ki di interprété xolu mën na tàmbalee foofu mooy ak ëppalam ak diisalam mën na tàmbalee foofu ci sens bi nga xam ne moom lay jox texte yi wala xóotal bi nga xam ne da ko ci xóotal ci fi mu ko war a déggee yam foofu du fa yam da koy xóotal ba dépassé ko dugg ci foo xamante ne waru foon àgg loolu yóbbu ko ci xulu te xeetu xulu boobu xulu bu dangereux la ndax nit ki bu fekkee ak ëppalam ak diisalam ci diine mi ngi tàmbalee ci ni muy déggee texte yi bu woom bu boobaa mën nga wax ne diineem yépp ak ëppal lay doon ndax maa buniya ala fasid fa huwa fasid mbir boo ko tabaxee ci lu bon dafay yàqu te bu dee ci ni nga déggee sa diine foofu la problème nekk kon problème bi dafay àgg ci sa diine yépp problème bi dafay àgg ci sa diine yépp lu mel ne ñi jiitu woon ci ñi sànk woon ñu bëri ci loolu dañu amoon lu mel ne alxawaarij nga xamante ni ustaaz an mi ñu ci doon waxtaan sànq alxawaarij fan la seen xulu tàmbalee lu dul ci niñ doon interprété texte yi sibaabul muslimi fusuqun wa qitaaluhu kufr di yéeg ci ab jullit di ko ŋañ di ko xat génn ab kàccoor la jëfu kàccoor la waaye di xeex ak moom kéeféer la ñu ne kon nit ki ñaari nit bu ñu xeexee li muy tekki mooy ci lislaam bu xitaal amee xeex bu amee ñu jël ngànnaay jaamaarloo ñaari kuréel li ñu dëkk mooy génn nañ ci lislaam ay yéefar la laa yadxulul janna nammaam laa yadxulul jannata qassaab ki nga xam ne dafay wër di rambaaj ci diggante nit ñi du dugg aljanna ñu ne li ñu tekki mooy ala kulli xaal du dugg aljanna dafay tax safara déggin yooyu bu fekkee nit ki am na ko ci lislaam problème bi dafay law daf koy topp daf koy topp ndax problème bi ngi nekk ci ni ñu interprété texte yi moo baaxul loolu yóbbu ko ci mu am ay taxawaay yoo xamante ni yàqu la am ay pas-pas yoo xam ne yàqu la innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ñi muy nangu ci ñoom mooy rek ñi nga xam ne ñoo ko ragal kon foog nit ki nekk muttaqi pour yàlla nangu ci moom nangooy jëfam li muy tekki kon mooy bu nekkul muttaqi di jëf ay bàkkaar yu mag yàlla du nangooy jëfam ñu sukkandiku ci loolu wane na kon jëf bàkkaar yu mag dafay génne nit ci lislaam ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin léegi bu boobaa liñ leen di wax mooy kon yëfare bi nga xamante ni bëgg a tuub dugg ci nekk nekkul muttaqi nekkul ku ragal yàlla ndax ab yéefar la léegi tuubam boobu jëf la jumu jëf est ce que yàlla ko nangu jamono bi mu koy def ndax jamono bi muy tuub di dugg ci lislaam boobu yéefar la ndax yàlla dina ko nangu tuubam boobu te yéefar la léegi loolu question la boo xam ne foog ñu gëstu tontu bi tontu bi li koy indi mooy xam ne tafsir bi tafsir aaya bi wérul aaya bi li ñuy tekki mooy innama yataqabbalu llahu min almuttaqin mooy dafa am rabt bu am bayna al-amal al-mutaqabbal wa bayna sifati taqwa jëf bi nga xam ne moom la yàlla di nangu yàlla da koo lëkkale ak anam di ko nit ki di jëfe moo ne jëf bi ngay jëf ragal yàlla di nga ciy ragal yàlla mooy tax yàlla nangul la ko bu fekkee jëf bi ragal yàlla dalu ko yàlla du ko nangu jëf nekk ragal yàlla mooy tax yàlla nangul donte ragal yàlla ragal yàlla nit ki d'une manière générale mën naa am ay gàllankoor mais bu jëfee jëf boo xam ne ànd naag ragal yàlla yàlla noonu lañ koy noonu lañ koy déggee rôle tamit dina nekkaat ci atte yàlla yi atte yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala wàcce na ko ci jàmm yi nit ki ni ñu appliqué atte yooyu rôle mun na cee am yàlla daganal mbir nga xaraamal ko ay mbir yoo xam ne nit ñi mënuñu koo ñàkk ci seen dund seen wàllu lekk wàllu naan ak yooyu nga ñëw ne da koy bàyyi wala da koy bàyyi noonu ñu loolu xuluw la amoon na sax ci ay nit ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne loolu lu baax la yi nga xamante ni yàlla daganal la ñoom ñu jàpp ne araamal ko ci seen bopp loolu daf leen di àggale ci yàlla loolu nekkul gis-gis boo xam ne bu wér la te yonent bi alayhi salaatu salaam jubbantu woon na ci ay nit jubbantu woon na ci ay nit mës na def dara ay nit bañ koo def yaakaar ne ñoom dépassé nañ ci di def loolu ma ne lan moo tax ay nit man may def dara ñoom ñu yëkkati ko di ko ba a def xam leen ne maa leen gën a yàlla te maa leen ko gën a ragal xulu boobu dina nekkaat ba léegi ci position bi nga xam ne nit daf koy am par rapport ak position bi muy jël par rapport ak ay nit loolu mi ngi dellu ci buntu bi ñu tuddee al asma wal ahkam xëy na du ñàkk ne oustaz an am na lu mu leen ci junjal ci alxawaarij alxawaarij xam ne ci ñoom la doon muy atte bi ki di atte ci ay nit jullit la du jullit naafeq la ku ragal yàlla la ku ab kàccoor la atte yooyu ngay atte ci nit ñi ab mubtadi' la ab sunni la nga xam ne day waral nga am ci ñoom ay position yooyu jël ci ñoom acte yooyu nit ki mën na cee am xolow mooy mën na cee am ak taral akub diisal ba tax muy àggale acteem yooyu foo xamante ne waru ko foon àggale loolu di waral muy jël ay taxawaay ci digganteem ak ay nit yoo xam ne da ciy ëppal da ciy diisal te waru ko woon am waru ko woon am loolu am na ci discussion bi amoon diggante Abdullah ibn Abbas ak alxawaarij bi nga xamante ne Ali yabal na ko mu dem fekk ji leen ci ñu campé woon laata muy jaamaarloo ak ñoom pour waxtaan ñoom lan mooy seen problème bi mu waxtaanee ak ñoom bokk na ci problème yi ñu waxoon mooy lan moo tax Ali ibn Abi Talib di nangu ñuy atte ci téere yàlla ay nit ñëw di ci atte ak seeni xel xel mu ne leen waaw téere yàlla bi bu ko yàlla wàccee moom mooy wàcce wàcc ñëw di ko at ci atte nit ñi foog ay nit yu ragal yàlla ñooy ñëw jàng ko xool lan mooy atte yàlla ci mbir mu nekk ñu ne lii moo ci atte yàlla te loolu yàlla sant nañu ko ci xuraan yaxkum bihi dawa adalin minkum hadiyan baligha al kaaba yàlla subhanahu wa taala atteloo na ñaari nit ci loo xam ne ab attel la mu ne nañ ci atte nañ ci atteloo ñaari nit ñoo xam ne ñu maanu lañ te loolu ñu ngi ko wax ci ab rëbb boo xam ne dañ ko rey ci xaram bi Abdullah ibn Abbas ne bu yàlla atteloowee ñaari jullit yu maanu ci rëbb bu ñu tuur deretam ci xaram bi naka lañuy bañ a atteloowee ñaari jullit yu maanu ci jullit ñoo xamante ne dañu tuur seen deret mu bokkaat ci mu leen laajaat ba léegi ñu wax ñu ne mu ne Ali ibn Abi Talib lan moo tax bi ñu négocier ak Muawiya mu nangu delloo dellu ginnaaw ci turu amirul mu'minin comme waa dañ ko wax ne ko du ñu nangu en tant que grade bu amirul mu'minin ñu ci def yow ay négociation ndax ñun jaayante wooguñ ak yow reconnaître ko ne yow ay amirul mu'minin kon dangay ngay dellu ginnaaw ci titre boobu bañ def négociation yi ba pare Ali ibn Abi Talib nangu loolu alxawaarij ne imma dafa mérité imaara gi nekk amirul muminin moo tax mu sañ a xeex bu fekkente ni loolu la waru cee dellu ginnaaw bu ci delloo ginnaaw def na loo xamante ni bàkkaar la boo xam dañ cee war a xeex ak moom wala ñaareelu beneen ñaareelu mbir bi mooy ne amirul muminin bi kon mérité wu ko yelloowu ko da koy xëccoo di ci xeex ba ci tuur deret jullit ñi te loolu tamit bu ko defee mérité nañu xeex ak moom kon ñu jël ko tëj ko ci foo xamante ni ala kulli xaal ñaari mbir ñu ko tëj bu ci nekk dañ cee war moom mu ne la yonente bi alayhi salatu salaam grâce bi ko yàlla tappal moo gën a foor loolu fu muy rasulullah yonente yàlla te keroog bi muy discuter ak waa Quraysh waa Quraysh na ko ñu reconnaître uñ ne yow rasulullah nga buñ ko reconnaître woon duñ fi nekk di di jàppante ak yow kon bu ñuy bind ne dëppoo ci ay accord de paix bu ñuy bind dañuy bind mu xam lii mooy li nga xam ne Quraysh dëppoo na ci ak Muhammad ibn Abdillah mais duñ bind mu ko rasulullah yonente bi alayhi salatu salaam bu dee ci ay négociation lay nangoo dindi gratuit rasulullah parce que ñi muy discuter wu ñu loolu kon Ali na Abi Talib bu nangoo dindi amirul muminin kay loolu lu mën a nekk la gars yi yëngal seen bopp beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne daf leen di jàpp ci ay prisonniers ci guerre yi muy xeex ak jullit ñi waa Cham du leen rey te comme ay yéefar lañ ba tax muy xeex ñoom daf leen war a rey bu ñu dul woon ay yéefar bu boccee jaase di xeex ak ñoom moom lay doon ndax li ñu waxoon léegi rek sibaabul muslimin fusuuqun wa qitaaluhu kufr bu fekkee xeex naa ak ay jullit yéefar la ndax bu jàppee ne ay jullit lañ ba tax du leen rey warul woon xeex ñoom bu fekkee nag ay yéefar lañ dalee leen war a rey léegi ñu tëjaat ko encore ci ñaari bunt Abdullah ibn Abbas ne leen kan ci yéen moom moo nag ñemee jabaroo ndeyam Aïcha kan ci yéen moo ñemee jabaroo ndeyam Aïcha loolu junj la biñ naan junj doy na borom xel mooy ne Ali ñi mu jàppanteloon Aïcha bokk na ci ci problème mu Abdullah bin Zubayr bi Aïcha jógee Màkka ñëw ci maarakatul jamal maarakatul jamal ba Aïcha jàppante ci ak kuréelu Ali ndax da ngay considérer jàppante boobu Aïcha jàppante woon ak Ali da ngay considérer ne ñi mu jàppanteloon ay yéefar lañ bu dee considérer na ngeen ay yéefar kon li muy tekki mooy sa ndey mi nga xamante ne mooy ndeyu jurit ñi Aïcha di soxna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xeex boobu duñ ko defoon prisonnière mun nga koo jàpp def ko ab jàmbu jigéen di ko jabaroo kon loolu moo lay wan na la yenn déggin yu yu teer yi lu mel ne xawaarij façon déggin yooyu mooy yóbbu nit ci yenn extrémité yi ci yenn taral yi dem ba boo doon daaneel asamaan sax mu yaakaar ne moom li mu nekk ni njub la fekk ni lépp ci ay interprétation yoo xam ne yu yàqu la yu mu am ci ci texte yi kon position yi nit ki di am tamit ci kuréel yi foofu ëppal daf tay am bu ñuy wax nag xool ci li nga xam ne mooy sabab yi muy cause yi nga xamante ni mooy faral di waral ak ëppal dañ koy xëy na gën a lëkkale ak ñi nga xam ne kuréel gi nga xam ne si ñoom la ñuy wax muy ndaw ñi yan yan yan mbir mooy faral di gën a waral ci ñoom melokaan yooyu muy ëppal boobu bokk na ci mu ñàkk am formation bi nga xam ne dëgg-dëgg moom lañ war a am formation bi ñu ko wax mooy wàllu yar ak jàngal jàngal ak yar saa yar rek saa jàngal rek mais jàngal ak yar ñaar yëpp nit ki daf ko soxla donte mën nga wax yar nit ki ci xam-xam ndax nit boo ko yar da nga ko yar ci kaw dara yar nit ki ci kaw xam-xam mën nga koy wax waxee noonu léegi nag li ci ci ndaw ñi amatuñu ay delluwaay yoo xam fa la ñuy dellu di ay kër yoo xamante ni bu nit ki commencé di góorgóorlu ci yoonu njub dinañ ko fa mën a yar tàggat ko ci xam-xam ak ci orientation yoo xam dina ko musal ci lu bëri ci ay fitna ak ay déviance yoo xam ne mu ci kanamam te bari na trop tentation yi bari na trop léeg-léeg da ngay gis ne jeunes yi dañu am ay problème dañ lay gis di la poser question yoo xam ne yow léeg-léeg mën nga koy xeex fekk na ay problème la ci moom li tax nga duñ ko comprendre mooy da ngay xalaat yow ba nga tollee ci âge boobu lu bari ci ay mbir ay questionnement yu ngand lay nekk ci sa bopp pour nga comprendre ko day jafe léegi nii bi nga demee ba am benn maturité bi am benn âge bi loolu nekkatul problème ci mais am na âge boo tolloon dala doon jaaxal kon ndaw ñi léeg-léeg yooyu ñi am ci xel di ci xalaat di seet ay tontu te gisuñu leen ci mën a indil tontu yu dal seen xel mën na nekk ay problème yu des ak ñoom yoo xam ni ëllëg su ñuy dem bay dem ci ëppal loolu mën na nekk loo xam ni fa la mbir mi di moo tax kon encadrement boobu ak tàggat googu loolu mënu ci ñàkk bu fekkee amul rek day bàyyi benn vide boo xam ne bu leneen ñëwee rek daf koy daf koy dal di fat daf koy occupé mu bokkat ci itam ba léegi ne bu fekkee dañuy def ci ñoom njàng xam-xam boo xam dañ leen ciy tàggat na nekk ci yoon boo xam ne yoon bu mucc ayib la nañu jàngee xam-xam ndax bëgg a jàng rek bu mu tax nga jàngee n'importe parce que xam-xam kaaka ñaari boor la dafay jariñ comme dafay lor am na noo koy sàkkoo sàkkuwin bi bu fekkee muccul ayib day tax xam-xam bi ni koy amee du baax léegi problème yooyu di ci àndaale ci njànginu xam-xam bi daf lay toog indil la ay ay problème nekk ay sabab yoo xam ne dina sabab sa sànkute loolu bokk na ci di jéem a gëstul sa bopp di jéem a jàngal sa bopp yaakaar ne mën nga demal sa bopp ci yenn xam-xam yi liiral ko sa bopp comprendre ko dem bàgg ci benn niveau bi li muy faral di indi mooy di dajale ay njumte yu bëri yoo xam ne da ngay yaakaar ne lii mooy dëgg boo xam ne ci la ñëpp war a nekk fekk na ay njumte yu mag la mais amuloo outil ak bagage xam-xam bu la may nga mun ko comprendre dégg ci am rek daf boo tra gëstoolee sa bopp noonu da ngay faral bi yëm sa bopp da ngay faral di naw say xalaat ñi nga xam ne jàngu jànguñ ci ay loxoy nit ñu taa taateeti leen ci xam-xam ay nit yu faral di yëpp yu naw seen xam-xam la ñuy doon gaaw a mën a xeex xam-xamu nit muy jikko bu bon ci xam-xam ndax xam-xam loo ci gën a loo ko gën a am rek di gën a wàccewu dañuy wax ni dafa mel ne ay fruits yi ci garab banqaas bu la gën a bari fruits yi moo la gën a wàcc banqaas bu la gën a néew moo la gën a yëkkati xam noonu la mel ci jaar ci ay euh, loxo yi borom xam-xam bi tàggat la ci xam-xam njëriñ yu bari la am ndax dina la orienté ci xam-xam bi ba yenn masaayil yi nga am ci dégg-dégg bu ci ay bañ cee juum yenn njuumte yoo xam ne daf lay sànq beneen mbir bi ci nekkaat mooy daf lay wàññi daf lay damm ndax nekkat nit mu lay jàngal nga xam ni moo la ko xam-xam ngay nangoo wàcce sa bopp ci kanamam daf lay tàmmal wàcce sa bopp daf lay tàmmal wàcce sa bopp wàcce sa bopp boobu ngay wàcce sa bopp ci kanamu nit mu lay jàngal nga dem ba tàmm ko dootul nekk dara ci yow dootul nekk problème ci yow mais bu fekkee tàmmloo ko doo ko mën te nit ki bu nekkee ci xam-xam di ci yëngatu foog jikko boobu nekk ci moom nangoo wàcce boppam ci kanamu nitu xam-xam beneen bi mooy ñàkk mi am ay repère ak ay lu ma wax ay idole mais am daal ay royuwaay yu baax loolu tamit bu fekkee ndaw li amu ko ñu teg ci kanamam ay royuwaay yoo xam ne ñii naw nañ ko ci diine mu leen di xool di jéem a roy ci ñoom te mu nekk lu baax lu koy gën a dëgëral ci njub loolu bu ko ndaw li ñàkkee léeg-léeg mën na tax mu jéem a trouver boppam moom ay royuwaayam te royuwaay yi bu koy trouver du ko trouver ci ay base yu dëgër ci yaama neex rek la koy teg diw neex na ma parce que mën na wax ay xutbaam dafay tàng parce que dafay dajj moo gën a tàng gaa Euh, comme loolu dëppoo na ak sama nature ndaw sama nature jeunesse bi ma nekk kon man kooku mooy sama idole mooy sama royuwaay moom laay déglu ay kasetam moom laay suivre ay vidéo parce que moom moo gën a tàng gars yi gars yi ci des bu i wax wax moo a tegu ci xam-xam borom yuuxu yeeg xadara jeeg li muy wax teguwul ci xam-xam dafay enflammé noonu li wax rek parce que wax bu jub duñ ko natt ci kii wax ci ban xadar la koy wax léegi su ko natt ci loolu nit ku nekk ak sa nature ak ni nga mën a waxee mu bokkat ci itam ba léegi mooy yi nga xam ni wër nañu ci actualité bi ci xeex yeeg fitna yeeg problème yi am ci àdduna bi partout dans le monde léeg-léeg ndaw li am na benn lecture bu simpliste bu mu ci am boo xam ni boo ko analyser boppam rek te amul ko ku ko mën a liiral expliquer ko yenn yi jàngatal ko ko ci benn façon bu leer bi benn lecture bu mu ci am mun na ko yóbbu ci mu am yenn position yi nga xam ne position yu diis lay doon ñu tar lay doon mën na ko ci yóbbu ndax léeg-léeg ay sentiment de frustration la yu dajew yuy accumulé wu ci ndaw yi surtout tooñ bi ñu tooñ jullit ñi di tuur seen deret di leen néewal doole te li koy def mooy l'empire occidental moom moo koy def empire la bu mag boo xam ne dafay dox ci yoon wi ku taxaw ci kanam mu mu maasale la parce que moom ci objectif am bëgg a jëm bokk na ci seen obstacle comme ni ma ko waxee woon ci tàmbali waxtaan bi l'islam comme l'islam obstacle la dañ koo war a néewal doole ba lépp lu ci nekk luy gàllankoor seen projet loolu ñu dindi ko loolu tax ñuy neewal doole ak jullit ak den faagaagal partout dans le monde bokk na ci tamit lii xew lu mel ne diggante Israël ak Palestine nit ki di ko gis di gis deret yi ñu koy tuur bis bu nekk ci jullit ñi léegi ndaw li buy gis loolu yooyu léeg-léeg bu fekkente ni amul yenn orientation yu mu àndal bu ñu koy jox ci xamal ko ne ko solution bi dafa am lu mu laaj daa am ay yoon yu mu war a jaar yii ak yii moom dafay yaakaar ne dañu war a dem droit au but mooy dañu war a jël gànnaay dem jëflante ak ñoom jeex na képp ku jàppalante ak ñoom ñu jaamaarlu ak ñoom jeex na genre solution yu radical yooyu lay daal di ut yaakaar ne mooy régler problème bi fekk ne loolu régler problème bi dafay yokkaat problème bi moo tax kon yooyu tamit bokk na ci léeg-léeg la ñuy tarloo ndaw ñi li leen di tarloo mooy loolu ñuy gis muy provocation bi ñu wax yi ñu waxoon sànq yooyu tamit mën na leen pousse ba tax tar nekk ci ñoom mu bokkaat ci tamit ba léegi xiiroo ak ngaayoo bi nekk ci biir jullit ñi ci sabab yi xiiroo ak ngaayoo ak parparloo bi nekk ci biir jullit ñi dafay tax a tar ci ay position dafay tax a di dem ci yenn extrémité yi ndax ku nekk da ngay jël ay position di ci gën di moy di gën a sori sa moroom ak di ko gën a wan ne ko maag yow dëppoowuñu maag yow bokkuñu maag yow ànduñu chaque jour nga koy gën a bëgg di prouver loolu loolu di la puus ngay gën di xuus li nga nekk di ci gën di dem ba àgg ci foo xam ne sax waroo fa woon loolu tey muy dund la ci monde islamique ci jeunes ñi léegi mënatuñoo ànd mënatuñoo bokk ay dégg-dégg ku nekk da nga naan man lii mooy samay gis-gis ci masaayil yi loolu cheikh diw ak diw laa ci àndal képp ku wax loolu ànd naa yow ku waxul loolu maa ngi ay noonu lañ noonu lañ koy jàppee dañ koy tranché léegi mbir mi amatul ute nañ nañ jéem a waxtaan même bu fekkee ku nekk ci li nga nekk nekk nga ci masaayil yi àggul ci génn ñu ci lislaam àggul ci génn i ci tariqo ci yoonu manhaj ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna ci boppam dañ daan ute ci leen woon nekk min ahlu sunnati wal jamaa xilaaf naka jekk dafa mos yàlla xatta fi ma bayna saxaaba du ci xëy na usulul aqida mais ci yenn furuul aqida kon loolu mënul ñàkk loolu ci nature nit ñi lay dellu bu ñu ko jël def ay problème yoo xam ne dafay tax ku nekk jël kii jël gauche kii jël droite ñu ne du ñu seq ak tànk yooyu tamit bokk na ci taxasub mu muy parparloo boobu léeg-léeg dina pousse ndaw ñi ñuy àgg genn ëppal bi ndax boo taasubee rek àgg ci puus ci dem ci li nga waroon a bëgg yem ci fenn nga ëppale ko fa fa nga ca waroon yem ci bëgg gi nga ko bëgg ak yéen gi mu la yéen ak neex gi mu la neex li nga waroon a bañ comme am na ñoo ciy xëccool comme am na ñoo ciy xasanteel am na ñoo ciy xiiroo ak a ŋaayool loolu mer loola ba puus la ci na nga ko waroon bañee nga jéggi ci dayoo mujj gi di ko xas ak di ko saaga ak di ci wax loo xamante ni ëpp na kon loolu tamit extrémisme boobu tamit bokk na ci li koy yóbbu xiiroog naayoo boobu ak xëccoo boobu mu bokkaat ci itam ba léegi li ñu doon wax sànq ci frustration boobu di am ci ndaw li muy yàqute bëri mu bëri ci suñu société ak ñi nga xam ne ñooy wote ci neen am doole bu ñu am doole di wane seenu neex ak seeni caaxaan ci ñu leen neexee moo xam ci ñi nekk ci bidaa la di woote ci ay shirk ay bidaa ak ay caaxaan am ci doole ba bëgg a dee am ci liberté di ci wax lu mu leen neexee ñi nekk ci ay caaxaan itam ak pomeeg pecc meeg yooyu nekk am ci seen liberté am doole ñi fi nekk di jéem a yëwanal ak a baaxal di woote ci yoonu siratul mustaqim di woote ci yoonu alquran ak sunna nekk ñu ñu néewal doole nekk ñu ñu ñàkk considéré léeg-léeg ndaw li bu ko yàlla baaxee mu bokk ci kuréel boobu ñu néewal doole muy jàngat situation bi ak mbir mi ni mu demee gis ne lii warul woon demee mën na ko indil benn frustration bu bu tax mu yaakaar ni dañu war a jug jéem a saafara loolu faj loolu ci benn bis rek mu deñ mu jeex fekk ne du ci benn bis wala ñaari bis la ñuy dindi loolu mais doxin na boo xamante ni processus bu gudd la boo xam ne yàlla moo xam kañ lay jeex mais ku nekk da nga ciy bay saw laaj def ci sa kéemtalaay kàttan ci ni nga ko war a defee ba sa jëf fam ca yam yàlla mottali li ci des yonente bi alayhi salatu wasalam loolu la mos di wax saxaaba yi ci xadiisu xabaab ibn al arat bi biñ ñëwee ci ci ci ci kaaba bi fekk yonente bi alayhi salatu wasalam mu toog nee na mi ngi toog ci keppaaru kaaba ji laxasoo benn manto bu ñuul ñu ñëw ne ko ñun day sonal nañu lool ci biir Quraysh ci biir Makka ndax doo ñaan yàlla mu dimbali ñu yonente bi alayhi salatu wasalam ne leen yàlla de mbiram nii kam ko war a àggale dina ko fa àggale mooy doxin la boo xam ni ni mu war a doxe rek noonu lay doxee bàgg fa mu jëm yàkkamti bu ngeen yàkkamti wala sonn bu ngeen sonn du tax mukk yàlla accéléré ko ñi leen jiitu woon yàlla natt woon na leen ñu leen di mbugal mbugal bi te taxuloon ñu bàyyi seen diine yéen yéen leen war a gën a mën a muñ yàlla moom dina mottali diineen bi loolu la leen wax li mu leen wax ci mujjantal yi walakinnakum qawmun tasta'jiluun da ngeen di yàkkamti rek waaye yàlla moom mbiram mi dina ko mottali istijaal boobu mu ti boobu ak jéem a trouver ay raccourci pour gaaw a àgg fi nga jëm gaaw a def ay résultats nañ gaaw a def lii pour ñu mën a àgg ci état bi jël ko instauré fi benn état islamique imposé fi état islamique du lay imposé déjà système bi fi nekk système de démocratique bi compatible ak ak système l'islam ñi ko mos a jéem a forcé ay problème lañ ciy am genre raccourci yu mel noonu léeg-léeg ay problème lay mu bokkat ci ba léegi tamit ci yenn yi ni yenn radicalisme yi ci ci ndaw ñi ñàkk a position wu yenn borom xam-xam yi ndaw ñi léeg-léeg dañuy gaaw a tuumaal borom xam-xam yi ne diw mi dafa bëgg àdduna léegi diw mi borom xam-xam ñu nguur la borom xam yi dañoo ragal lan moo tax mbir sàngam danoo teewuñu ko lan moo tax amuñu position sàngam fekk ne mbir mi nekkewul noonu léeg-léeg sa lecture bu ñàkk a xóot muy ni ngay jàngatee mbir mi jàngat boo xam ne bu bu tegu ci kaw la nii rek xóotul bu baax moo leen pousse nga yaakaar ne ñoom lii lañ waroon wax léegi nag comme waxuñu ko lu tax waxuñu ko nga ni li tax waxuñu ko c'est parce que dañoo ragal wala seen intérêt la ñu sàmm xoolal ci sulhul Hudaybiya bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi def négociation de paix ak Quraysh fekk mu jóge Makka jóge Madina jóge Madina dig jullit ñi ne leen di ngeen dugg masjidul haram yàlla wan na ma ni di ngeen dugg masjidul haram ba tawaaf yàlla wan na ma ko mais waxul waxul kañ la daf ne rek yàlla wan na ma ko ñu bëri ci ñoom jàpp ne kon bu ñu jógee di dem leen dara du leen gàllankoor dinañ dugg loolu lañ fa jàppoon biñ demee ba àgg ci bërëb bi ñu tuddee Xudaybiya foofa ca taatu garab ga fañ campé fa leen Quraysh fekk yabal fa ay ndaw wax leen ne leen du ngeen dugg duñ leen bàyyi ngeen dugg ndax Quraysh lu mu jàppoon mooy bu jugalee boppam Madina ñëw rek dugg li muy tekki mooy dañoo néew doole ba léegi day ñëw rek dugg sans suñu autorisation mu neex ñu mu naqari ñu loolu duñ ko nangu bu ko defee gàcce lay doon boo xam ne arab yi dinañu ci xat kon na dellu yonente bi alayhi salatu wasalam toog pour négocier ak ñoom di xaar bañ yónni Suhayl ibn Amr bi Suhayl ñëwee yonente bi alayhi salatu wasalam def ak moom yi mu def ak moom keroog lu bëri nangul na leen ci luñ ko wax ci yoo xamante ne jullit ñi ñu fi bari dañ jàppoon ne loolu tooñ la koo xam ne Quraysh tooñ na leen ko waruñ ko nangu ba Omar ibn Khattab doon wax naan lu tax ñuy nangu ak suufe ak toroxtaange ci suñu diine ndax ñun nekkuñu woon ci toroxtaange ba yàlla teddal defal ñu teranga ci diine ji lu tax kon ñu ci nanguwaat ak suufe ak toroxtaange ci kanamu ñoo xam ne ay yéefar lañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam am gis-gis boo xam ne bu gudd la gis-gis boo xam ne bu kawee la résultat yi ñu doon xool néewoon na keroog ci jotaay ba ñu ko fekkee woon ñoo xam gisoon nañ résultat yooyu mooy ne dina fekk rek mu toog di def négociation de paix ak Quraysh ndam la woon victoire la woon ci jullit ñi ndax Quraysh musul reconnaître ne jullit ñi ay nawleem lañ yoo xam ne war na toog ñoom di wax ñoom kon bu demee ba accepté leen en tant que ñoo xam ne war na toog li mu bëgg ci ñoom mu négocier ko ak ñoom ba ñu nangul ko ko sans pour autant que mu mooy léegi am na lu bëri lu changé ci gis-gis bi mu amoon ci jullit ñi loolu rek doyoon na sëkk ak yeneen yoo xam ne Quraysh ci jëloon na ko ci digganteem ak jullit ñi yoo xam ne moom ay ndëgg sërëx la woon ay piège la woon ci moom Quraysh yonent ba alayhi salaatu salaam xam loolu moo tax keroog bu ñu jógee foofu Omar ibn Khattab daf daan faral daf doon faral di wax naan ittahimu ra'y ittahimu ra'y dee di tuumaal seen i gis-gis dee leen di tuumaal seen i gis-gis keroog bi yonent bi i salaatu salaam di delloo Abi abu jandal rëcc jóge màkka ñëw ak ay jëngam taxaw ci kanamu yonente bi alayhi salatu wasalaam di doomu suhayl ibn amr suhayl ne accord de paix yi ñu signé ci kii lañ koy njëkk appliqué dafay delloo ndax dañu waxoon ne bépp jullit bu dawee màkka ñëw madina dañ koy delloo waaye képp ku dawee madina dem màkka duñ ko delloo mu ne kon ci kii lañ koy njëkk appliqué yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ne abu jandal delloo delloo ñu ñaan suhayl ba sonn suhayl na day delloo noonu lañ ko jéngatee ci ay jéngam delloo loolu naqari woon loolu jullit ñi Omar ne keroog bis boobu su ma mënoon delloo ndigalu yonente bi alayhi salatu wasallam dinaa ko delloo ndax jàppoon ne li ma jëf moo gën a dëppoog dëgg li moo waxoon wala li mu jëloon comme waaye ba mu ci jógee ci la xam ne ndakate ci njuumte la nekkoon muy wax na ne ittahimu ray ittahimu ray da leen di tuumaal seen xel yi da leen di tuumaal seen xel yi kon ñàkk a comprendre position yooyu nga xam ne yenn borom xam dañ koy yi ñu am te ñenn ñi nga xam ne ñooy faral di woote ci taral di tuumaal borom xam-xam yooyu naan ay borom xam yi nguur lañ ay borom xam nangam lañ li ci ëpp li koy waral mooy ñàkk a tënku ci xam-xam ñàkk am xam-xam bu xóot ñàkk am xam-xam bu xóot boo xam dina war a nit ki am yenn gis-gis yoo xamante ne yu xóot lay am ci li muy ubbee ak position yi muy am loolu loolu léeg-léeg dina jural ñenn ndaw ñuy déglu ñooñu non seulement ñoom xeebeel ci borom xam-xam yi ñu waroon dégg jëriñ ci ñoom mais mu yóbbu leen tamit ci ak taral seen i position léegi bu ñu xoolee ci jeexital li nga xam ne moo juddoo ci ëppal googu bu fekkee am na yu bari la liñ ci tudd mooy waral ndaw li dëddu ñi nga xam ne ñooy wayi xam-xam ñi nga xam ne ñooy gëstukati xam-xam yi ak jàngkati xam-xam yi nga xam ne bu bëggee comprendre dara ci diine wala mu jàng ko ci ñoom la war a dellu ñu teegu ko ci ndax man daxala fi l ilmi waxdahu xaraja minhu waxdahu ku dugg ci xam-xam yow kese génnaat ci yow nga ci duggee woon noonu nga ciy génne dara du la ci toppee wax du lay jëriñ la wegeet gi mu war ci ñoom ba tax mu dellu ci ñoom jànge ci ñoom jëriñu ci ñoom loolu ndaw li bu benn taral bi nekkee ci moom du ko def li tax mooy seytaane day ñëw def ci xolam ne kii dafa nooyal dafa nooyal ci ay mbiram dafa tàggan ci ay mbiram kon bul dem di ko déglu wala ngay jële ci moom léegi loolu bu ko ndaw li xasee am comme gis-gis ci nit yi yëngatu ci xam-xam day daal di dugg ci extrémité boo xamante ni dugg ci beneen côté bi àgg ci ak taral goo xam ne ëppal goo xam ni pour mu delluwaat ci ginnaaw dina jafe trop léegi loolu ci lu mu koy yóbbuwaat lu mu koy yóbbu mooy di jéem a dem di uti ji ñeneen ñoo xam ne ñoom lay ñoo ñooñu nga xam ne ñoo jàng xam-xam ba am ci benn màcc gi ak benn ñor gi ak benn xóot bi mu jéem leen remplacer ak ñoo xamante ni seen discours ñoom moom la gën a mën a dégg que discours borom xam yi mooy li ma doon waxtaan ci ñi nga xam ne dañuy enflammé wu di enflammé public yi di yuuxu gaa yi tax biir ñii di daanu fi mu ne voilà kii mooy ci mu war a déglu fekk na léeg-léeg yàlla xam na ni sax du ma ne ñëpp ñuy def loolu teguwuñ ci xam-xam ndax loolu lu baax la ci lu mel ne xutba comme na ko jaabir ibn abdillahi al ansari radiallahu anhu waxee mais yonente bi alayhi salatu wasalam bu daan xutba bët yi day xonq kanam bi dafay soppeeku buy wax day mel ne ku mer noonu la daan xubbee foofu mu footool di dégg baatam kon loolu baax na ci yëngal nit ñi ah, defaat ci ñoom ragal yàlla waxat ñoom loolu baax na ci seen taxawaay mais du ci kuy waxee noonu rek ci la ñu nattee xam-xam ba tax na leen léeg ndaw le bu fekkente ni xeebal boobu am na ko ci ñi mu war a dellu si ñoom jële si ñoom xam-xam dafay dem ci beneen kuréel boo xamante ni ñoom lay jël fekk na ñoom ñor ci xam bu tax ñu mën ko orienté orientation bu jub nekku fi loolu moom mooy problème bi léegi moo tax léegi da ngay gis ci léeg-léeg nga gis ci internet bi ay nit ñoo xam dañuy siw jox leen benn tur bi ñuy wax di jël yenn position yi di iftaar ay jeunes yu bëri topp leen naw leen lool yaakaar ne ñi ñooy mujaahidu ñi nga xam ne borom xam-xam mujaahid boo xam moom la ñu war a dégg fekk ne boo dégloo ay position am ak ay ubbee yi muy ubbee ci lislaam nga jàngat ko ci xam-xam da nga gis ne lu ci bëri teguwul ci xam-xam bu dëgër teguwul ci xam-xam bu dëgër loolu moo tax bi yàlla wax ne yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum gayra alxaqi wala tattabiu ahwaa qawmin qad dallu wa adallu kasiran yàlla bi mu waxee ne yéen ahlu kitaab bu leen ëppal ci seen diine ci lu teguwul ci dëgg li muy tekki mooy ëppal du tegu ci dëgg mukk xayda bayaani la nekkum xayda boo xam ne la mu mafhum gayra alxaqi xayda bayaani la mooy kon xulu fi diin laa yakunu bi xaq laa yakunu bi xaq léegi li mu ci teg mooy wala tattabiu ahwaa qawmin daf ne bu leen ëppal rek ne bu leen topp bànneexi ay gars yoo xam ne dañoo sànku di sànkaate loolu li muy tekki mooy li ci ëpp xulu dafay ànd ak topp ñoo xam ni ñoo lay manipuler te teguñ duñ la teg ci njub ndax diisal ak ëppal gi nekk ci yow mooy tax loolu ñu lay oriente di la ci yóbbu da lay neex nga leen cee topp fekk na du njub kon yàlla foofu dafa lëkkale ñaar yooyu laa tax taxlu fii diinikum xayra xaq wala tattabiu ahwaa qawmi kon jeexitalu tamit xulu boobu mboq na ci léeg-léeg ñàkk am repère yooyu ba mën a dellu ci borom xam yi lay orienté defal la dalal la teg la ci njub bi nga xam ne ci nga war a nekk ak teey ak xikma bi nga xam ne moo war a nekk ci yow dangay ngay jàpp ne loolu ak nooyal la ak euh, gàttañ lu la boo xam ne déedéet naa dem seeti ji koo xam ne daal ay mbiram gën a tàng loolu muy yóbbuwaat tamit ba léegi ci jeexital yi ci tëñëx tëñëx ak làmbatu ci xam-xam ëppal googu bu fi nekkee nit ki ñàkk dellu gi muy ñàkk dellu ci fa mu war a sàkkoo xam-xam ak yoon yam ko war a sàkkoo ci lu ko yóbbu mooy làmbatoo ak tëñëx tëñëxi dem ci internet bi dugg ci forum yi dem ci vidéo yi di xool ak mel noonu làmbatu googu di tato ne loolu ku koy def di aventuré wu noonu ci xam-xam li ci soo moytuwul da ngay tànk réer léegi loolu boo ko seetloo tañax tañaxi googu ak làmbatu googu yóbbuwaat ci jeexital yi ba léegi ndax dafay nekk ay ay ay aakaar yoo xamante ni dafay lëkkaloo dañuy jurante bii dafay jur bii bii jur ko dafay yóbbu ci ndaw ñi bu fekkee ëppal googu nekk ci ñoom ak taral googu nekk na ci ñoom mu jur mbir yu mel noonu ci ñoom ñàkk tënku ci yoonu xam-xam ak ci ñoñi xam-xam ci anam bu wér làmbatu gi ak tëñax tëñax gi ci xam-xam yóbbuwaat ci lan ci juum ci ay matériels yoo xam ne boo ci juumee rek mu def ay dégâts def ay ravages. masail yoo xam ne boo ci juumee rek mu indi ay problème yu baree baree baree bare non seulement ci yow mais même ci société bi ngay dund mooy société jullit ñi loolu mooy li li ci masalan baabul amru bil maaruf wa nahyi anil munkar baabu taxyir buntu ak taxyir ñàkk sàmmonteeg maraaxilu taxyir man raa minkum munkaran falyugayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dalika ad'afu l-iman yonent bi alayhi salaatu wa salaam état bi mu def ci soppi ñaawte boo mënee soppi rek sa loxo ci ki nga xamante ni mën na te loolu tamit ba léegi dafa amaat beneen fànn lu mu laaj ndax léeg-léeg nit ki mën na dindeeg loxoom waaye dañ koy wax na ko waxal ndax bu fekkee boo waxee nit ki mu bàyyi bu boobaa nga wax ko mu bàyyi moo gën ngay dindeeg sa loxo ne ko bàyyi li ngay def mu bàyyi du jar ngay dem di dindeeg sa loxo du jar ngay dem di jëfandikoo kàttan waaye jëfandikoo kàttan boobu bu ñu ko waxee mooy foo xamante ni bii boo jàppul dindi du deñ lu mel ne ku yoon kàttan ku yor nguur luñ tuddee ahlu xitba ñu jox leen benn autorité bi ñu nekk ci dëkk bi di dox xam ñoo xam ne ay yàqkat lañ ak ay ñaaw defkatu ñaawteef yoo xam ne foog nga dem jàpp seen loxo pour ñaawteef yi ñuy def ñu bàyyi ko loolu dafa laaj lu ci am sulfa dafa laaj mu am kàttan gi ak sañ-sañ bi tax mu mun koo def ba bu ko defee du yàq ba bu ko defee du yàq mais wa illaa ki nga xamante ni bi yow kese la nga xamante ni loolu amuloo mën-mën boobu boo ko jëflanteeg société bi mu jur ay yàq mënoo jëfandikoo sa loxo ne la ngay soppi bu booba bul bul dem ci boobu ndax loolu boo ko defee li ngay def noonu nekkatul topp yàlla mais mooy yàlla alxadria dafa wax ne loolu nit ki bu xamee ne bu yàq bu soppee ak loxoom mu jur yàqute boo xamante ne bu tar la boobaa dafay bàyyi jëfandikoo waxam dafay bàyyi jëfandikoo xam loolu mooy nee na al fiqh fil bu fekkente ni bu waxee wax ja tamit jur yàqute ndax mbir mi mënu koo wax boobaa na noppi mu naqar la ko ci xolam ne allahuma hala munkarun la narda bihi loolu moo fi moo tax alimam ibnu qayyim ne boo seetloo fitne yi am yépp ci diine ak yàqate yi am yépp mën nga ko delloo ci asl bii nii mooy lan mooy gis ñaawteef jéem koo soppee ci jamono boo xam ne mënuñu koo soppee nañ ko bëgg a soppee mu jur ay dégâts nee na yonente bi alayhi salatu salaam mi ngi woon màkka di gis ay ñaawteef yu mag waaye ba mu ca néewee doole mënu koo soppi forcé wul ne daf koy soppi dafa bàyyi ba yàlla kàttanal ko ba mu mën mu soog a soppi te nee na ba buy soppi day jëfandikoo xam-xam ak di jëfandikoo beneen règle bokk moom lañ tuddee an nazaru ila al maalaati wal awaqib te an nazaru ila al maalaati wal awaqib al imaamu Shaatibi nee na aslun mu'tabarun fi shar mooy mbir mi ngay def nga xool lan lay jur bu ëllëgee yonente bi alayhi salatu wasallam dafa woon Aïcha ne ko sa xeet day bu dul woon ay wàcc bees lañ ci lislaam kaaba gi dinaa ko fekk delloo ko ci fondement wu Ibrahima ndax bi ko Quraysh ci budget bi ñu amoon dafa jeex ñu wàññi ci loolu dinaa ko ci delloowaat mu ne ko lu tee nga def ko mën a ko sa xeet ay wàcc bees lañ ci lislaam sa xeet ay wàcc bees lañ ci lislaam foofu benn borom xam dafa wax ne liñ ciy déggee mooy alxataabi Hamad wala Ahmad ibn Suleyman al Busti alxataabi dafa wax ne foofu asli la boo xam day wane ne léeg-léeg nga bàyyi loo xam ne lu baax la lu ñu war a def la ngir ragal résultat boo xamante ni da koy jur te bu bon lay doon ragal conséquence yi nga xam ne moo ciy juddoo kon foog ngay xool jëf yi ngay def conséquence yi muy jur yaa ngi jéem a ñaawteef l'islam digalu la rek ne soppil ñaaw te ñaawteef nekkul fin en soi nekkul ne na fi jóge rek mais l'islam dafa bëgg boo soppee ñaawteef bi mu am lu ko wutu loolu koy wutu lan la foog nga posé wu question boobu kii mu ngi def lu bon waaye lu bon bi su ma su ma ko dindee ci anam bi lan lay jur lan moo koy remplacer lan mooy ñëw place bu dee lu baax la alhamdulilah moo xam lu baax la cent pour cent wala lu baax la à cinquante pour cent ba léegi moo tane bu dee lu bon la immaa nit mu tolloog lu bon la fi nekkoon bu boobaa ijtihaad la da ngay ijtihaad comme ni Ibn al-Qayyim waxee bu dee lu bon la loo xam ne moo gën a rëy li fi newoon ñu ne la bàyyi bu dee lu bon lay jur loo xam ne moo gën a rëy li nekkoon ñu la bàyyi loolu moo tax ñuy wax ne Cheikh al-Islam Taymi rahimahullah daan na romb ay daggkat yi yoon yoo xam dañ daan dóor jullit ñeeg bi leen rey ak di leen faagaagal romb leen ñu naan seen i sàngara ak a caaxaan nit bëgg leen a tere mu ne bu leen tere bàyyi leen loolu ñuy def ci ñaawteef bàyyi leen ci ndax boo ko comparé ak bu ñu bàyyee li ñuy def nii la ñuy defi ji la ñuy defi ji moo gën a garaaw ko ndax bu ñu nekkul di naan sàngara ak def seen caaxaan yi ñi ngi tuur deretu jullit ñi te loolu moo gën a rëy kon ñu noppal jullit ñi ci seen ci seen mbonte donte mbonte bu ñoom ñi ngi ci ñoom mu yem ci seen biir moo gën mbonte bi jóge ci ñoom di leen ci jullit ñi kon léeg-léeg loolu la ibnul qayyim bi wax ne al fiqhu mooy maarifatu xayril xayrayni wa maarifatu charri charrayni dégg am dégg-dégg ci diine mooy ñaari mbaax teew nga xam ba ca gën ñaari mbonte teew nga xam ba ca gën kon foog ngay analyser muy qaidatu tazaaxumil mafasidi wal masalih loolu buntu bu yaatu la ci diine al imam al izz ibn abdusalaam bind na ci benn téere boo xam ne rek la ci jàngal mooy al qawaid al kubra kon li muy jur mooy ba léegi ci baabu tax yi buntu buntu sotti nga xam ne fa la problème yu bëri di juddoo te al mu'tazila ak al xawaarij dañ ko tuddee al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar boole ko ci seen usulu di wax digle lu baax tere lu bon la tax ñu doon jël ay ngànnaay di tur deretu jullit ñi ci turu digle lu baax tere lu mën na yàq lu bëri te fikra bu mel noonu xalaatin bu mel noonu dafa judduwaat ci jamono ñu bëgg tey ci ñi jur ay fitna di taal ay guerre yoo xam ne ay junni junni junni deret ci jullit ñoom moo ciy dem di yàq loo xam ne kenn kenn mënu la ko wax ñoom pour ñoom li ñuy def tax yërul munkar la dañuy soppi ñaawteef mais xooluñu soppin bi ñu koy soppi ak conséquences yi muy jur ñu loolu ñoom li ñu xool rek mooy mbonte mi ngi fi ñàkk koo soppi ragal la wala yambar la kon déedéet ñun loolu bëgguñu ko nañ jug soppi ko boo fi toogee leen yam leen dal leen ba mën a soppi am njën soo ko soppi ñu ne la déedéet yow li tax ngay wax la c'est parce que di lay atte atte yoo xamante ni yu tar la daal di lay atte atte xam ni yu tar la kon foog nit ki sàmmonte maraaxilu al munkar maraaxilu taxyir foog nit ki sàmmonte ak moom sàmmonte qaidatu al masaalix wal mooy bu ñaari mbonte teewee wala ñaari mbir yu baax teew wala lu ban lu bon ak lu baax teew te foog nga def ci benn ci yooyu teew boobaa naka ngay calculer ba xam ban nga war a jiital ci di ci def boo amul fiq ci buntu boobu boo duggee ci buntu soppi ci suñu société yi ñaawteef somotu la erreur rek ngay def ndax da ngay jël texte yi di ko interpréter interprétation bu terre à terre ne yonente bi alayhi salatu wasalam moo ne man ra'a minkum munkaran kon naa ko soppi wala yonente bi moo wax ne nga jàng benn texte boobu nga bëgg ci traité buntu boobu alors que l'islam boo ci dee dugg di istidlal bi istidlaal di ijtihaad foog nga rabt bayna nusus wa bayna qawaid sharia al amma loolu moo tax nga am liñ liñ tuddee maqsudu sharia mooy texte yi foog nga koy delloo règle l'islam yi nga xam ay règle générale la l'islam dafa am ci ay bunt bu nekk daf ci am ay règle générale yoo xam ne kenn mënu koo ñàkk kenn mënu cee ñàkk tënku kenn mënu koo ñàkk respecté ci bunt boobu léegi mënoo interpréter texte yi ñëw ci bunt boobu interprétation buy tax nga ñàkk tënku ci règle yooyu kon foofu chaque fois booy dégg texte yi yu ñëw ci bunt boobu nga lëkkale ko ak règle yooyu mooy ay règle générale léegi lañ leen dégg-dégg boobu bu ko nit ki amul day tijji rek feuilleter lire texte yi noonu interpréter ko li mu ko jox ci dégg-dégg mu bëgg a jëfe loolu sans pour autant mu dellu ci règle générale yooyu ñu doon wax kon dafa am lu tuddee maqasidu sharia comme nit ki bàyyi bàyyi ko xel bu baax a ci buy tegtalu li muy juraat ba léegi ci yi muy yàq bu ñu waxee ci sàmmonte ak qaidatu masalihul mafasid dañuy wax tamit sàmmonte ak qaidatu an nazar ila al maalat wal awaqib bi ñu doon wax sànq mooy li ngay def lan lay jur li yàlla waxoon dafa waxoon ne laa tasubbu alladina yasub yacbuduna min duni illahi fa yasubbu allaha aduwan bi gayri ilm bu leen di ŋàññi li ñuy jaamu te du yàlla bu ngeen ko ŋàññee loolu puus leen ñoom ci nooneel ñu ŋàññi yàlla ci loo xam tegul ci xam-xam kon ŋàññi li ñuy jaamu te du yàlla lu baax la fil aslu mais comme boo ko defee mu jur beneen mbir boo xamante ni bu bon la bu lislaam buggul lislaam dala kon bàyyi lu njëkk li bul jël jëf bi nga xam ne lu baax la woon nga def ko mu nekk cause lu bon moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne bokk na min akbaril kabair an yasubba rajulu abaahu bokk na ci bàkkaar yi gën a mag nit ci saaga baayam ñu ne kayfa yasubbu rajul rajulu abaahu yasubbu aba rajul fa yasubbu abaahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu nit ki day saaga waajuru nit mu saaga waajuram kon mel na ni moom moo saaga waajuram ndax moo saagalu waajuram kon l'islam da koy culpabiliser ci li nga xam ni conséquence su jëfam la te mu mënoon koo éviter kon conséquence yi foofu nga koy bàyyi xel ci say position say yi ngay jël yëpp mais bu fekkee amuloo dal googu ba balaa ngay def wala ngay jël position ci ay mbir nga jàngal ko pour xam lu muy jur chaque fois ci ay problème rek ngay dëkk mu bokkat yi mu jur ba léegi liñ doon wax sànq ci dem ba extrémisme boobu muy di takfir jamaat yi ak afraad bu fekkee war nañ taxaw rek ngeen tan ñu ñu taxaw bu ko defee jub tayib insha allah tayib suraam insha allah la plupart xulu dafay ànd ak tafsir ndax la plupart nit ki bu xuluwee bu nit ki dëppoowul ak moom gis-gis rek day yaakaar ne moom moo sànk moo tax fekk siw ko ci dégg-déggam li ci ëpp yenn mbir yi yenn tawaif mu yenn kuréel yu jéggi dayoo ci l'islam di def dañ koy def te parce que dañ jàpp ne ñi ñu koy def ci ñoom nekkatuñ ci l'islam te loolu boo dee déglu yenn nit ñi nga xam ne dañuy jëf ci yenn mbir yi ñu tuddee jihaad dañ ko tuddee ñoom yenn vidéo yi ñuy def nga koy suivre ci ci ci ci ci internet bi la plupart bu ñuy wax ci société bi ak wax ci nit ñi da ngay sentir ne dañ leen jàppee ne duñu ay jullit moo tax dañu jàpp ne seeni alal ak seeni deret dafa dagan dafa dagan a kon xulub bi dafa yóbbuwaat ci takfir boobu yóbbuwaat nit ba léegi ci ñaawal derul islam ndax nit ki bu ëppalee ëppal boobu mu ci sukkandiku ci ay jëfam ak ay waxam la fekk ne loolu muy def ak di ko wax du rafetal l'islam du rafetal derul islam daf koy ñaawal beneen bi ci nekkat tamit ci xulu rawatina ci ndaw ñi mooy dafay nekk occasion boo xam ni occasion en or la bu ñuy jox noonu l'islam yi pour ñu gën a mën a exploité ko dal ci kaw l'islam dal ci kaw jullit ñi ci ñaari côté benn dal bi mooy diaboliser jullit ñi benn tar bi ñuy gis ci ndaw ñu utiliser ko wane ko ci seen média de propagande yi leen voilà li mooy l'islam l'islam mi ngi nii bu ko defee ci Occident ñu wan leen ni l'islam barbarisme la yitteem mooy ñëw di tëral nii di leen rendi comme ni ñuy rendee ay xar bu ngeen dof dofloo ba lislaam ñëw ci seen dëkk yi jullit ñi dinañ leen rey comme ni ñu rey ay xar loolu lañ leen di gëmloo bu ko defee ñooñu gën a sori lislaam gën a daw lislaam wala ñu utiliser ko pour jël seen ngànnaay seen industrie militaire bi door ko ci kaw jullit ñi ci turu ne jullit ñi dañoo taral dañoo ëppal ay extrémiste lañ dañ leen war a liquider amuñu place ci àdduna bi kon ñu ñun ñuy ndaw duñ leen bàyyee ba ñu àgg ci benn ëppal gi ñoom ñooy joxaat occasion noonu lislaam yi pour ñu mën a am occasion dal ci kaw lislaam ak tamit yàq daawatu ahli sunnati wal jamaa ci côté yu baree bëri néewal ko doole léegi tey nekk min ahli sunnati wal jamaa ci àdduna bi mel ne crime la ndax image bu bon bi nga xamante ni dañ koy wane ci àdduna bi di ko askanale ñi nga xam ne ñooy dund ci ahli sunnati wal jamaa daanaka léegi sax ñiy wax ci médias yi en occident bu ñu bëggee xas nit doy na rek ñu melal ko melokaanu ne ci pensée bii la bokk ci kuréel gii la bokk muy kuréelu ahlu sunnati wal jamaa pour wane ne kon terroriste la intégriste la extrémiste la fondamentaliste la pour wane ne wala ñooñu kuréel boobu moom ku ca bokk te kuréel googu mosuñu mel noonu mais lan moo tax ñu dem ba image boobu ñu jox wane ko ci ñoom ci àdduna bi mooy yenn kuréel yuy askanawoo ci ñoom di yëkkati seen i tur ànd ak benn tawe bi nga xam ne jéggi na dayoo wala léeg-léeg yenn seen yenn vidéo yi wala yenn kii boo ko seetaanee da ngay rus ndax da gis kenn ku taxaw di wax ci turu l'islam di wane ne moom mi ngi xeex mi ngi yoonu yàlla di wax ci benn niveau bu terre à terre boobu da ngay xam ne kii ay farataam sax soo demee xamoo ko ni ko war a xamee ndax suufee niveau xam-xam bi ni nga bi ñuy wax te borom xam-xam yi ku wax ci ñoom mu tafsir la ku wax ci borom xam yi lu ko neexul mu tafsir la ki ci gën a jege mooy Boko Haram bi nekk Nigéria waaye bi nga xam ne moo ko jiite boo suivre ay discours am ak ay vidéo da ngay rus waaye ci niveau bu terre à bi muy wax te day wax di tafsir ay borom yi xam-xam naan leen yow da ngaa wax loolu parce la moo tax ngay wax loolu. di yéefar laata ci koo xamante ni sa àll wa soriwul sa àll wa gudd yu mel noonu kon war nañ ci bàyyi xel ba xëy na bu ñàkk bis bu yàlla defee ñu am ci beneen jotaay dinañ waxtaan ci li nga xam ne moo koy solutionné mooy solution yi luñ ci mën a proposé ñu proposé ko ci insha allah comme na ko oustaz Dia di waxee dañu waxoon nañu xëy na dafa am ay quelques perturbations yenn programme bi moo tax dañuy puus waxtaan bi ba après 18 heures kon mën naa dem ay 18 heures yooyu loolu moo tax ma xaw a yéex a maa ngi ciy jégalu bu baax a baax yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala nangul te barkeel ñu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain حياكم الله بارك الله لا لا kon mbokk yi ñu doyloo loolu ñaan yàlla subhanahu wa taala am nañu beneen occasion boo xamante ne dañ ci mën a gën a yaatal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم نفع الله بكم وبعلمكم Thank you.